tabaar fa tabaarakallaahu santati rek waaw alhamdulilahi alamin nee na nii rekk la de ci yéene ji ak pëstéef bi ak yitte ji ci jublu gi noonu rekk la demee bu nu ci kenn mag kon nag nu gën a santati rek gën a sant sunu borom bu baax mi nu booleeg Serigne Touba sëriñ bi di sunu lépp tey ak ëllëg nu nu ko sëkk suñu diggante ak moom di ko sant bu baax di ko seere saa su waxtu wu ne suñu jaayante di ko feddali waxtu wu ne sunu laxasaay fas ku yéene nekkal ci li mu bëgg nu nekk ci daay man soxla wu nu dara tey ëllëg lu dul moom ak nekkal ko te yàlla rek tax jërë ngeen jëf waaw fa tabaarakallaahu kon jërëjëf Mbàkke nu ngi yeesalaat rek di la sant rek di la sant rek ndax sa taxawaay bii tax na murit bu ne xam na ne ña ña buuroon wutali sëñ Tubaa nañu meloon nekkete jombut moo tax saa su ne nga ñuy wax bu ñu ci kenn mag nañu xool taxawaay boobu tekki suñu bët bu ñu buñ ko xoolee rek xam loolu jërëjëf na ñëpp tàllal nee na buñ ci jombale dara suñu bopp lu nu doyadi doyadi rek nañ ci nekk rek jërëjëf Mbacke te bàyyee suñu bopp ak sëriñ bi rek jërëjëf na ñëpp tàllal amiin ok sëñ bi nee na mi ngi koy yeesalaat nee na